fanweeri fan ci weeru décembre mbokk yi ñu fas yéenee dellu si waat ci sant Serigne Touba di fukkeel bi ak juróom-ñaar kan moo koy def ñu ne ah kooku nag moo di Serigne Mahfous Mbacke Makhtar Gaynde borom daaru mooy mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ñëw santale ko Serigne Touba fanweeri fan ci weeru décembre ca HLM Grand Diourbel muy am foofa ca Njaareem ànd ceeg daayira yi nga xamante ni mooy di ay taalibeem di daayira yi Serigne Mahfous Mbacke mbokk yi ñuy woo ñëpp di woo képp ku di jullit ñu teg lépp nag ci kilifteef ak ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Basiru Mbàkke Anta Ñang xalifa maam Cerno Birahim Mbàkke sëriñ Saaliw Mbàkke Afiya xalifa sëriñ Afiya Mbàkke sëriñ maam Cerno Mbàkke ak xalif bu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke sëriñ Khadim Mbacke docteur xalifa sëriñ Modou Awa Balla Mbacke sëriñ Mahfous Mbacke ibnu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke sëriñ Khalil Rahman sëriñ Mouhamadou Mokhtar Mbacke sëriñ Fallou Mbacke ibn sëriñ Basiru Mbacke sëriñ Basiru sëriñ Isaaka Mbacke Basiru sëriñ Ateex Mbacke Fallilu sëriñ Mbacke Mohamed ibn sëriñ Mouhamadou Mokhtar mbokk yi ñuy woo jullit yi di woo taalibe yi di woo ñëpp ñu ñëw teewe ko ci fan fanweeri fan la ci weeru décembre muy am foofa ca HLM mbokk yi nag Serigne Mahfous Mbacke Makhtar gaynde borom daaru mi ngi woo jullit yi di woo képp koo xamante ci njaboot gi nga bokk ak daayira yi ñu xam ne nag bis la boo xam ne bisu Serigne Touba la bisu jullit yëpp la ñuy def lépp nag jël invité d'honneur gi teg ko ci son excellence niir Nur Sakman ambassadrice bu république bu Turquie waaye xam ngeen ni bis bi yemunu rek ci loolu ndaxte dañ ciy def ay dépistage di ci def ay consultation gratuite sëriñ bi baaxoo ko di ko jagleel ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi jigéen ñi ñu war a seet seen i jàngoro loola ma ngay am dimanche 24 décembre ca école kër yéelli altine 25 décembre ña nga ca kër gu mag mardi 26 décembre ña nga ca kër sëriñ Mbàkke Sarr mercredi 27 décembre ña nga ca kër sëriñ Cheikh ngontu maam Cheikh Ibrahima Fall parrain ba di sëriñ Khalifa Fall ajjuma 29 décembre consultation médical gratuite HLM bu Grand Diourbel ñu teg nag li nga xamante ni mooy móol bu njëkk bi di première prière poste moo fay am inauguration bi ñu jagle lépp nag ci turu maam Thierno Birahim Mbacké bu 21h ñu def flambeau samedi 30 décembre bu nu xëyee dinañu saytu doomi adamay yi consultation médicale gratuite boo xam ne ngay am ca Grand Diourbel ci bëccëg bi ñu def kasaayit jàng alxuraan ziar def puus def berndel ginnaaw bi ñu dalal délégation bi nga xam ne mooy délégation parrain bi di maam Saliou faal mbokk yi ñu gàttandu gan ñi sëriñ ma Mbacke bu 17h jotee ñu dalal ki nga xam ne moo di sëriñ ma Mbacke mu ñëw teewal fa sëriñ Mouhamadou Mokhtar Mbacke mbokk yi cérémonie officielle bi ñu def reer bu ñu defee reer ba mën ba pare nag ñu fanaanee sant mbokk yi sëriñ Mahfous Mbacke mi ngi woo ñëpp mi ngi woo jullit yi mi ngi woo taalibe yi mi ngi woo képp koo xamante ni ni lépp luy itteel l'islam yaa nga kon mbokk yi le trente décembre mooy doon cant gi ma ngay am ca Grand Diourbel mu doon bis bu mag di bisu l'islam di bis boo xamante ni dañ ciy sant Xaadim Rasuul